bi fatt ah. waaw affaire bi tey dafa war a neex gaayen billaay tey Sénégal moo jël ndam bi billaay bu ragal dara ko ragal tey Sénégal moo jël ndam bi tey ndam bi indi sa Sénégal waaw waaw maa la ko wax aje aje waay ah classement bi nice na pour l'instant nice na waaw waaw ça va bien Ali Diallo. ah instant yi kontaan nañ parce que li ñu waroon def def nañ ko mooy dugal nañu 1-0 léegi nag ñu dugal beneen bii pour assurer suñu qualification moo gën a wóor. laalee Elimane Ndiaye bu laalee ballon bi rek ñoom ñëpp dañu yuuxu. waaw parce que moom jour bu mën football la bal bi muy teg lépp gis nañu ko si terrain bi boo ko jëlee première daanaka occasion ñu am yëpp si moom lay jógee bal bi yëpp si moom lay jógee si moom lay jaar. ñu ngi rafetlu liggéey bu baax ñu ngi ñaanal gaynde deuxième mi-temps ñu def lu leen war ñu mën a gagné parce que xam nañu Équateur bu ñëwaatee dinañ wane fulla loolu am lu ma wax quoi. waaw match bi moom instant yi kontaan nañ ñu ngi ñaanal Sénégal am ndam Iliman Ndiaye tey Aliou Cissé kontaan na Paris 6 mi Iliman Ndiaye mi ngi baax instant dañuy ñaan deuxième minute bi gars yi ñëw accomplir jeex loolu la ñuy ñaan quoi kontaan nañ. allez les lions allez les lions. daa ni Iliman Ndiaye a ah. Elimane mooy suñu Messi dafa mën gisoo leen li muy liggéey terrain bi macha allah on est fier de lui. ah d'accord nga ci li waaw waaw en plus il est beau ah <laughs> Elimane moo fi ne waaye il est mais deuxième femme mën na nekk. waaw oh, quand même il est musulman aussi il a droit à quatre femmes. Oui. waaw dañuy déposé kay pourquoi pas. am naa jëkkër ba pare jox leen lor lii lañ doon xaar si moom lii lañ doon demandé aussi depuis lors gën nañu dëkkal li nga xam ne moom lañ doon xaar Sénégal kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax. mais xale jigéen ñi Elimane daa mel ni dañ koo nopp ah, ñu ngi réclamer politique. waa nouvelle moom parce ni muy joué rafet na te aay na bu baax a na ko yàlla la fal te gën ko dooleel bu baax a baax dóor dóor rabbi dóor. pourtant sànse wu ma de fi laay liggéeyee quoi. fi laay liggéey waaw. match bi c'est bon ah liñ gis comme daal comme na xel. dégg nga li ngay wax de. 17 millions de coach ñuy wax à la place d'Aliou Cissé. aussi pour analyse ak critique ak gis nañu aussi. en tout cas daal électricité la premier méta bi li mu defagum baaxagum na te am nañ yaakaar dañuy door incha allah. dégg nga Elimane Ndiaye mooy suñu waaw Sadio Mané day xaar ba jamono neex Sadio Mané day xaar ba jamono neex waaye Sadio Sadio nga xam Ilimane moo fi nekk léegi léegi nan la fi Ilimane nekk rek ba Sadio ñëw merci. man kenn ma jël. waaw waaw waaw booy booy caméra ma wax yaay maa ngi fay télé <laughs> waaw lan mooy sa question tey door Calvé bi jëm na final bi yëngu tey dañoo war a yëngal étudiants yi war a yëngal. <laughs> waaw yaay <laughs> caméra waay caméra waay si tey dañoo war a yëngal wax yaay wax ko sama yaay waaw wax ko sama yaay macha tey dañoo war qualification la étudiants yi dañoo tey waa bi fac bi dafa war a boy maanaam tey jour mbégte la huitième de finale Qatar Sénégal moo fa suñu drapeau kese war a des Qatar ren ñu ñooy ak ren bésu Sénégal la 2022 c'est pour le Sénégal on va ramasser tout voilà merci beaucoup.